alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi rahmani rahim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh allahumma dakkirna kulla ma nasina wa allimna kulla ma jahilna mbokk yi ñu fas yéene ñëw ak yéen ci 1889 ci ndimbalul borom bi jeexaloon ci bi yonent bi alayhi salaam di moytandikuloo jullit yi fitna bi ñëw ginnaawam te mu bokkoon ca mooy fitna yi diggante jigéen ak góor muy joxe misaal ci euh, la dalal waa banno israila ma nga jóge woon ci fitnay jigéen digganteem ak góor waaw itaqu nisa fa inna awala fitnata bani israil kan fi nisa nu gis ni ngëm yàlla gu bari mi ngi wàññeeku jikko yu bari mi ngi yàq dem bàyyi ko ci diggante góor ak jigéen kon nit moo am problème nit mi yàlla wóolu woon wàcc ko ci kaw suuf bëgg mu nekk fi nekkin wu tegu ci yoon mu bind ay téere jox ko yonente wàcc leen nit moomu léegi moo am problème te ka ci ëpp problème mooy ki suñu borom jiital ni ko yaa gën ci xeet yi yaay digle lu baax di tere lu bon muy doomu adama nga tudd mu'min gëm yàlla jullit di def jëfu ku gëmul yàlla dub jullit loolu munta am mbokk yi bu nax suñ bopp nax suñ bopp benn nga nekk góor walla nekk jigéen kon bu muskil amee ci diggante góor ak jigéen fitna nekk jigéen moo tax ñu naan bul nekk jigéen ja nga xam ni moom la nit di gis ni ah la hadis ba waxan mooy jigéen ñu mel nii yow bul nekk góor goo xam ne nekk ci lu bon ba ku la gis ni ah addis bëkkat la mu waxan mooy doomu aadama bu mel nii waaw moo tax ah, am ku ñu wax Abdou Sama dafa wax ni man lam ya'lam anna sha'awaata fuququn fa huwa laabun nee na ku xawul ni bànneex yii ay fiir la nee na aw ab fokkat nga bànneexi ay fiir la mooy ñaata nit ñooy dugg sawara la leen fu yóbbu mooy bànneex bànneex lii dugg na ci mu mu loolu di ko bégal mu ci yëg boppam moo xam lu ñuy diglu la walla lu ñuy seetaan araam lool lool yu bari fekk ko ca wala dafa jaxasoo njaalo araam lool lool wala alal la joo xam ni aminoo dafa araam mën naa am rey na ci nit sax mën naa am jibar na ci nit mën naa fen na ca kon shawaat yëg-yëg bi ngay am loo xam ne ak lekk la wala naan wala jaxasoo góor ak jigéen ak bu ci mën a doon neena ay fiir la ku xamul ne ay fiir la nee na da da fa ah seytaane lu wax iblis lum wax jigéen mooy sama fitt gi nga xam ne ku ma ci diir du may wasaaya yi ñu doon jàng fan yee euh, wax jooju suñ tubaab indiwaat na ko ci biir wasiya boobu waaw fi àdduna la dañuy dund suñ dund nangam nangam xale bu ci tolloo def ko ah lu ba laaj nga jox ko ko léegi mujj bakkan di la ak iblis ak àdduna ak banneex bakkan ñooñu rek nashaatu rek waaw yonent bi alayhi salaam ci hadiisu Abu Hurayra te dafa wax ni inna allaha kataba ala ibni adama izzuhu min zina waaw adraka dalika la muhalatu wa sinal aynu an nasaru wa sinal lisaanu an nutqu waaye nag wa nafsu tamanna waaye wa tastahi wal farju yusaddiqu dalika kulluhu aw yukazibu jeex na nee na suñu dafa bind doomu aadama nii ko binde ay cëram cër bu am wal mën a am wàll mën a am wàllam ci def njaalo mu jox ci misaal mu ni nag njaaloy bët mooy xool kon waa ji bu xoolee ku wërta xool te tey ko te giwul bët ba ma bët ba ma ngay njaaloo nee na làmmeñ sinaam nee mooy tudd yaa ngi wax ak ndaw si loo xam ni ngir mu nangu ngeen njaalo la ak yu mel noonu lamañ bi ba ngay njaaloo cër yi noonu la mel mu ni nag wa daf su taman naa bakkan bi nga xam ne moom lu moom ko neex rek rek rek la bugg rawante bakkan boo xam ne defuñu ko taskiya tàggatuñu ko yéeruñu ko ba mu mel ni mel waaye nee na wal farju yu saddiqu waaye pëy bi mën a njaaloo muy bu góor wala bu jigéen nee na mooy dëggal li bakkan bëgg li bët xool ba xemmam ko li làmmiñ tudd nee na ki koy dëggal nee mooy euh, sa pay muy awra góor wala bu jigéen waaw wala mu fenal ko waaw bu pëy bi deful ñoom li ñu bëgg rek kon fen loo na leen waaye bu ko defee dëggal na leen tax ñuy tere jigéen ñi wéet xoolante laalante nangam nangam nangam nangam ñëpp alors dama ne suñu borom bi mu fi indeet danoo tëralal yoon woo xam ni mooy yoon wu maandu jigéen ñi li ñuy bari bari bari am nga ci ñeent ñoo xam leew nañ la waaw am na kon nag lu tax lu tax lu tax continuer dooni dama rëcc nekk ca fas ñu nekkoo dëkke am ñeent fukki at am juróom fukki at nekk ca ba kere ngay faatu subhaanallah waaw te jamono yi ñu ñëwoon fii ci kin fat futteeku ñëw ni lii moom seen culture la ñëw di ko imposer Sénégalais yi ñi jóg doon ci wax ñi leen di femm di leen arrêté danaa ah, sëriñ yi dëgg daal ñi ngi nekk seenu der ñi ngi seen kurus maanaam bëgguñu kenn wax ci lu bon am na ay ay jullit yu àgg foofu léegi waaw waaw naa sëriñ yi dëgg di ñoom xamuñu loolu loolu génn ndax duñ ko seetaan ñu ni kii wax ni lu bon li ñuy génn ci télé yi xanaa da koo seetaan mel ni daal dañoo bëgg ñi jàng diina gëmm luñu lu ñu xool ngir mën a yar ngir mën a fàttali ngir mën a nàngam te am na ci biir ñu jàng diine ñoom ñoo xam ne ñoom it jubuñu jubuñu gis nga seetaan euh, seetaan col col gu bon lu muy def ci aw xeet dégg naa ci benn mbokk euh, dama jàppatu tur bi defe naa sax loo tur nekk deux ses mu nii te muy yore filmu ind bi lu mu wax nee na boo gisee ind gën a bari wàllu viol tentative diggante góor ak jigéen jaxasoo gu jaarul yoon nee na am na sabab nee na bokk na ca filmu cinéma yii yi ñuy seetaan foofu jigéen ñi di ci def yaramu neen di mel melokaan wu doy waar nee na ñi koy seetaan nee na ah, léeg du ñu mën a garder seen bopp du ñu mën a téye seen bopp bu ñu génne moo tax nee na mooy réew mi ëpp ah, siif mooy diggante góor jigéen te yu bon yañ ci boole léeg-léeg buñ ko suivee ba pare ray ko wala ñu taal ko lu ko waral nee na cinéma ba cinéma ba ki ne ci scène bi mel na ko neex ngay góor di ko seetaan di léegi di am luy yëg xoolal googu yàq yàq nation lëm waaw génération yu lëm lay yàq te image ya ma nga fa jeex na génn na ba pare day yàq di wéy rek yàq di wéy rek day tax takk jabar ci yoon day wàññeeku njaalo di yokk ah, rapport góor jigéen di mujj yomb mujj ñu banaa banaliser ko nu ñu mujj def est-ce que kon famille famille bu solide bu bu bu bu jaar ci yoon dara bañ koo rax est-ce que dana fa mujj amati mbokk yi wàllu sexe lim mën a yàq wàllu njaaloo boo gisee borom bi détaillel ko boppam wut ay limit moom moo lu bidu moom moo xam li nga xay mën nañ ko ak lin mënul mbokk yi kon développement yi nu bëgg day fii ci jamono bokkul ak développement bi nga xam ni mooy tax suñ jikko yi nu nu nu nu garde ko waaw ndax réew yooyu ma tudd ñoo gën a développé suñu réew yi waaye ana ana mbañum rus ana ana jikkoy jigéen di sàng awraam ana jikko yu mel noonu jigéen rus a def yaramu neen ne ba tey ji ab sénégalais att na dese euh, tubéy ju ndaw moom jigéen ñu di ko xool ndax forme bi rafet na ndax ay pojam nu mel subhanallah ñun dañuy tànn miis waaw élection miss Sénégal su lay jàmm yow nga ñàkk solo di bàyyi solo doom mu di ca bokk ëpp naa def ëpp naa def inamal umamul axlaaqu ma baqiyat ah xeet yi ñu ngi gënante ci jikko yi jikko de jikko yi rek waaw kon développement dëgg-dëgg mooy développement boo xam ni yàqul jikko ya wax dëgg yàlla développement boo xam ni ah boo leen xoolee rek buñ jëfee nga xam ne ah ay jullit a ngi nii nag dëgg dëgg nag bu ñu waxee nga ne ay jullit a ngi nii dëgg dëgg waaw waaye waaye développement boo xam ni réew yu mag yoo xam ni day gis maire commune sàngam maire maire commune sàngam mu bokk ci góor jigéen yi doon ab góor jigéen am na corom bu jigéen wala moom sax am na jëkkëram ju ju ju joo xam ne jigéen la ah attanu dem ba xëccu am réew bokk ci candidat yi mu doon lu walaabal foofu ñaari jigéen lomb la yor benn xale bu góor bu ndaw ñu ni ñoom ñoo ko jur kii mooy premier parent kii mooy deuxième parent loolu mooy développement yàlla bu mu ñëw fii loolu yàlla bu mu installé wu fii ci Afrique na sori na yem fa mu tàmbale kon mbokk yi développement boobu day yàq jikko lislaam nag waxul boobu développement mu mel ni démb dañu laaj lan moo sabab lu yàq jikko yi bokk na ci wàllu technologie yi ak suñuy constitution yi ñuy tëggal suñu bopp suñuy loi suñuy décret yi ñuy def sañ-sañ bi ñuy jox kenn ni ko yaa jiitu réew mi lépp ak sa loxo yaay def yaay dindi muy buur ji mi tëral loo xam ni feek mi ngi fi li li mu bëgg rek na koy def te luwaa ko koy may te luwaa ba mi ngi koy jëlee ci Sénégal yi ndax bu fexee ba dominer assemblée lu mu bëgg ñu wocceel ko ko comme ni Sénégal musa bindoo daanaka Afrique ni musa bindoo ok kon sabab yi yàq bokk na ci ni ñuy fale lay yàq suñu jikko waaw ndax maandu dañ koy dégg rek bu boobaa dañ koy dégg bu boobaa te lu yomba xam la na tasabat xool gis li dund seetaan ñiy wax ci féete ci côté état ñiy wax féete ci côté euh, opposant yi ñiy wax ni ñoom ay Euh, partie civile lañu ñi wax ci kàddu diine ci biir diine ji sax ñi bokkul ay tarixa ñi bokkul ay ngir ñi bokkul waaso lu ne da ciy feeñ fu ci nekk daal mbokk yi changement am na fa kuy def di def càmbar di def tadabbur di xool nit ñi xool peese jël bois poids saria di ci peese ni nit ñi mel day gis ni sori nañu saria sori nañ jikko yu baax yi waaw mbokk yi wàllu liberté ni ñu koy gëmloo ni lii mooy liberté bokk na ci li yàq jikko yi liberté ba bàyyi sañatu la dóor doom ci yenn réew yi sañ waay boo ko dóoree xam mu nettali ko waxee kay eh, sanctionné nañ ko mu jóg mu génn këram moom bàyyi bi ab sénégalais la ci nanga nangami weer ndax daa dóor doom ji rek doom ji daal di jël téléphone bi rek wan wan nangam si woo police ñëw waaye nen bi ne bu mu génnee ba ñëwaat ci kër ga sama xarit bi ne toog nañ ci saal bi ñii nee na doom yi ndaw yi di jaar ci suñu ginnaaw maanaam photo yi ni ñu wéeroo noonu daw kenn du ñemee wax kenn kenn du ñemee wax kon liberté gu ëpp gii bokk na ci waaw liberté de l'enfant liberté de la femme liberté de tel tel tel tel rek liberté de la presse liberté de la nangam ba nit ki am na liberté yi ah, ni fi wàcc diine jii di lislaam dem dooni ab ate ndax mësuur na wala boog ndax xàmmee na jigéen sañ na ñu ma góor ñooy tolloo la ci miraas li yàlla waxoon ate boobu jubul jigéen moo góor ñoo yam liggéeyu kër gi bu ñëwee ñoo ko war a séddoo ku ci nekk na xëy liggéey bu ñëwee nangam nangam nangam gis naa fi ñoo xam ne takk nañ jabal yu mënta togg bu ñëwee nag ñu ne léegi dañuy dem restaurant dañ leen di servir ne ah, ndaw dund gu seer dara lu jabar ji jóge ci def ko defal ko góor gi Euh, amul du fóot du paase du toggal ko du yóbbul ko ndox du nangam du nangam du nangam waaw am na nag ñu ko def ñoo xam ne ñoom a euh, mën nañ ko layal waaye te du dellu ginnaaw jigéen ñi bu jigéen delloo ginnaaw góor dellu na ginnaaw kon nan ko aat suñu bopp waxtu jot na wasalaamaaleykum wa rahmatullah الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني